monsieur Gaye euh, jiite fédération boulanger du Sénégal ñu ngi lay dalal. Mhm, ñu lay remercier bu baax a baax ci ni nga nangoo doon suñu invité tey jii monsieur Gaye ñu wax ci li nga xam ne mooy boulanger yi jamono ji euh, ñoom ca boulangerie yi rek euh, la ñuy jaayee mburu mu doon li ngeen xam ne euh, yëkkati woon ngeen ko muy mbébét bu yàgg waaye it ba coronavirus bi duggee la ñu gis ne ci ngeen ci gën a taxaw mu am tey mbaa loolu yemb na ci Sénégal yépp Euh, maanaam mbiru bu dama dama bëgg gën a rek. Mm-hmm. mbirum euh, maanaam aaye mburu si bëgg yi. Mm-hmm. loolu benn décret deux mille vingt deux soixante onze bu vingt deux soixante dix sept bu trente décembre deux mille dix neuf. Mm-hmm. bu président Macky Sall signé moo ko moo ko dëggal daal donc loolu dugal sa coronavirus donc loolu ay mburu moomu amoon na beneen décret bu ko doon amoon cent deux deux mille quatre deux mille quatre la donc bu wane rek mbirum jaayu euh, mburu si boutique yi lu ñu aay dañ ko maanaam appliqué wu rek léegi nag euh, jot na ñu appliqué ko ndaxte aussi loolu dafa gaañ boulanger yu bëri donc tax na kenn liggéeyatul daal léegi loolu bu amee am na norme hygiène ño ñëw si lu ñuy wax contexte Covid 19 léegi nag dañ jàpp ni manipuler ay mburu si ay loxo yu bëri loolu mën na yokk jàngoro bi donc loolu moo ko doon tax ñu ni kon dañu appliquer affaire boobu mais nag li nga laaj mooy liñ ndax fépp lañ ko def. Mm-hmm. déedéet defuñu ko fépp ndaxte lañ gis ne lañ ko fa def donc yeneen région yi ñoom kenn def ko fa maanaam yeneen région yi la fa nekkoon ñaa jaay mu lu leen neexee ñu ngi koy def si boutique yi ñu def leen neexee loolu nag yaa xam ne responsabilité wu gouverneur yi daal ñoo jàpp ni ñoom Sénégal Ndakaar la yem bu ñu jàppee Ndakaar Ndakaar Ndakaar la yem maanaam santé population o xëy na loolu mën nañu wax ni euh, mën nañu ko mesurer wuñu danger bi nga xam ni moo am si affaire affaire affaire problème bi manu manu maanaam manipulation mburu mi ni mu bëree daal donc loolu daal mais gis naa nag gouverneur Saint-Louis bi moom yël na sax benn arrêté yaakaar naa ne pour defar comité pour mën a commencé jublu si liggéey boobu ñu ngi koy déjà rafetlu donc ñu ngi invité ni gouverneur yi ñu a jël loolu parce que léegi am nañu matukaay yoo xam ne moo leen ko may dëkk bi génn na donc waruñu mën a xaar kenn en tout cas loolu laa gis daal Sénégal yëpp appliqué wuñ ko fii rek ko appliqué ndax jàppale ne gouverneur yeneen région yi comme ni nga ko waxee dañ cee ànd ak euh, tey ak dal ndax euh, gis nañ ne du yëpp localité ñoo am yooyu le matuwaay dañuy dox sax ay kilomètres pour mën a am mburu ci euh, boulangerie yi est-ce que du looloo tax pour am mesure d'accompagnement yi moo tax it gouverneur yi gën a tey ci dogal moo tax dama dañuy war def benn choix hmm. maanaam nga wér nga wér wala nga am mburu ñaar yooyu la ñu mën décider maanaam nga wér wala nga ñaawul dama jàpp ni sénégalais. Mhm. fu mburu ma nekk dana ko fa jëlee donc problème mu manqué mburu du am ndaxte ñun gis nañu façon am na bis yoo xam ne toogoon nañu fi euh, am problème mu euh, ravitaillement maanaam taxawul ba nga ko nañ si teewul euh, nit ñi am na fu ñoom doxee dem jël di mburu donc problème bi du foofu daal problème bi am solo mooy nañu sàmm déjà santé population bi par rapport à ça te aussi gëm nañ ni. mën nañoo jox euh, jox jox jox jox ñëpp mburu mi ci anam yu baax bu ñu ko joxee les condition parce que man boulanger bi du ma investir ay caisse du ma investir dara du ma leeree ni euh, kenn du appliquer benn décret ak loi mais bu ñu ko appliquer man ay matukaay yu mat dinaa wut ay caisse dinaa lépp pour mën ko ko dëggal mais ñoom nañu appliquer rek boobaa wax boulanger ñu app ñu defar seen caisse ak seen yëpp daal daal. Euh, tey jii sax euh, ci matuwaay yi comme euh, jëm ci coronavirus bi gis nañ ne rang yi day gën a bëri ci boulangerie rawatina ci période koor gi mbaa li ñuy wax ka communautaire yi risques yi du gën a am foofu ci dajaloo googu. waaw dajaloo bi moom moom vraiment gënul donc lañu ñaax nit ñi vraiment ne serait-ce que boulangerie seen bopp nañu jël seen matukaay maanaam si biir boulangerie bi war nañ fexe képp ku fi dugg sol masque que ni ñu fexe ba nga sot ba nga xam ni ba nga xam ni yow kuy jaay mburu mi jigéen bi jaay mburu wala góor na sol gant bu mu laal xaalis rek lay laal bu mu laal mburu ñee ñi ñooy laal mburu na dëgg ay tikki joxe mburu loolu moo ñu ko def ba pare si biir boulangerie bi ñu régler ni ñu respecté distanciation bi loolu moom mooy ay recommandation mais si biti moom vraiment mënuñu ko parce que loolu association de consommateurs yi ñoo waroon dem nag sensibiliser nit ñi pour wax ñu respecter la distanciation parce que branche bi yoru pour mën a wax ñu def leen di nit ñi dañoo jënd dama aussi damaa gis tax quand ñu xool yan solution lañ ko mën a mën a mën a def pour mën a am ne dana mën a ci solution yooyu waa lan ngeen ci nar. solution bi njëkk bi mooy euh, d' abord boulanger yi seen bopp. Mhm. nañu defar production bu bëri buñ ko defee mburu mi génn avant midi. Mhm. ñu mun ko joxee nit ñi dafay nag consommateur yi dem di ko jëli ji si heure yooyu pour éviter rang bi di gudd loolu mooy vraiment benn solution bu am bu am bu mhm. solution bi mooy euh, ñun benn GIE benn GIE lañ créer maanaam entre RBS regroupement des boulangers ak FNDS ak Trade Point ak ay jeunes informaticiens ñu ni kon dañuy lancer benn plateforme pour que nit ñi di jaay mburu euh, nit ñi toog leen seen kër ñu jox leen mburu mi te du ngeen fay dara maanaam mburu fanweer bi du changé maanaam da ngay toog sa kër nga téléphoné lu nga am par WhatsApp pour wàññi rang bi lañ si jublu beneen bi mooy danañ wut ay casque yu bëri yoo xam ne déjà commande nañ ko ba pare euh, jox ko ay ay ay ay ay wala ay nit daal pour xool fan moo jafe-jafe yoo xam ne ñu teg ko fa pour wàññi affaire bi mënuñoo matal lépp nag mais dañ fexe daal pour que rang yi ngeen di kii mais d'ailleurs sax man gis naa ni fii ak euh, suba gannaaw suba rang yi dana wàññeeku bu bëri si sunu boulanger yi nga xam ne bokk nañ si ñun moo tax damay wax ne bu leen gis ak benn enseigne boo xam ne nit ñi moom am na méthode de jaayam méthode mu yéex nit ñi di farang mu bëri ngeen jàpp ni boulanger yëpp ñoo mel noonu am na boulanger yu ko defoon mais nag ñoom ñëpp ñu ngi changé donc yooyu yëpp dañu war a xam ni y a un changement yi boulanger yi danañ changé danañu xool yeneen matukaay yu ñu jël dañu wutu yokkaat seen kees gi mais buñ jàpp ni rek diw mi ngi def lii ko ñëpp noonu lañ mel donc euh, loolu laa xamoon ni buñ ko defee daal lañ si mën a génn daal wax nga ko tout à l'heure yéen a ngi organisé wu de telle sorte que li nga xam ne mooy situation gi ñu nemmeeku jamono ji da ngeen ciy paare maanaam ut seen plateforme euh, ndax foofu tamit mën nañoo am euh, kaaraange gu mat li ngeen doon euh, am njàkkare ci boutique yi est-ce que tamit di ngeen assurer ñi ñi lii di sécurité. ci seen plateforme loolu moom moo am fexe ba nga xam ni. Mhm. boulanger bi day fare moom mooy defar mburu mi ba pare. lëmas ko ba xam commandam bu nekk mu teg ko mu téye ko mu jox ko livrer bi livreur bi aussi de sol gant sol tenue bu rafet bu ñëwee rek jox ko borom donc loolu yëpp effectivement ñi ngi koy seqal aussi am nañu expérience bi mooy ay car rapide ak ay tic ñooñu dañuy accompagner si mois de Ramadan parce que dañ ni livraison bi c'est gratuit donc lu gratuit donc mënuñu si mënuñu si def loolu fexe ba nga xam ni nit ñi am matuwaay ji mu war a Mm-hmm. tey jii àdduna bi ñu wax ci li nga xam ne moom mooy euh, blé bi Russie muy exportateur bu njëkk ci àdduna bi fas yéene jël euh, dogal ne dafay dakkal bépp exportation variété yu mm. bëri yu ci mel yu céréales est-ce que impact décision boobu dinañ ko ressentir ci Sénégal. dëgg ko mën a ressentir Sénégal ndaxte euh, mburu moom blé koy defaree ah. Mm-hmm. donc suñu amul blé moom dana metti lool. mais nag assurance su boulanger yi. astafurlah mën ñooy ñu jaay ñu defal frais te ni am nañu trois mois stock yoo xam ne Sénégal si blé bi donc nañu ñaan rek mu bañ a guddaat loolu bu amee moom dana metti kon daal fi ak ñetti weer maanaam fi juillet boobu ñu wax sax. Euh, ñun Sénégal am nañ garantie ne dinañ am blé am nañ stock voilà c'est ça am nañ stock boo xam ne mën nañu téye tuuti daal. léegi nag dañuy ñaan nag loolu yàlla na yàlla na continuer. tey ci terme euh, consommation céréale ban variété la Sénégal di gën a jëfandikoo ci liggéeyam. maanaam variété bi bi ñuy gën a liggéey nag mooy euh, mil ak maïs bi ñun mburu mburu mboq la ñu gën a liggéey. Mm-hmm. waaye nag des fois ñu rax si ay yeneen légumineuses ay patates douces ay nebedaay ak foño bi ak foño bi donc yooyu yëpp donc lu am solo la loo xam ne nii mën ko boole si mburu bi mën ko def daal. loolu am na solo daal. monsieur Gaye tey jii boulangerie yi ay entreprise lañu ñu gis ne euh, mm. secteur yëpp jamono ji dañoo soxe tey jii yéen mm. fan ngeen yàqule nan la gën a euh, nan la gën a tare wala nan ngeen gën a yëgee lii crise bi ci contexte bi ñu nekk ni non moom ñëpp dinañ ko yëg ndaxte euh, couvre-feu moo gën tax sax say liggéey mën na gën wàññeeku mais xam nga même sa liggéey wàññeeku su dee da ngay perte bëriwul mooy mooy tane c'est-à-dire ba loolu liggéey fanweeri saak par exemple léegi boo liggéey fukki saak sax moo gën ndaxte façon njëkk bu njëkk bi li ñoon liggéey moo baaxu woon bu boulangerie yi dañoon mburu da par exemple ñaar fanweer ñu koy joxee ay cent franc yooyu donc loolu moo taxoon boulangerie yu bëri amoon ay pertement léegi nag boo liggéey donc loolu déjà dina leen wàññi donc maintenant beneen bi mooy loolu sax day tax sax ñun euh, ñu mën a euh, jamono ji ñu toll nii si ramadan bi ak covid bi dana tax sax nit ñi bu dee dañu respecté décret bi ñu wax dana tax boulanger yi di gën a recruter jigéen ñi si si boulangerie yi ndaxte jigéen ñi ñooy jaaykat yi gën te bëriwuñ bi donc euh, loolu moom am na solo daal. kon daal avenir euh, bi yéen a ngi ko garantir. mais bien sûr loolu maanaam dañuy garantir ñi fi nekk mais ba pare am na yokk ñoo xam ne yokk yokkute si yenn jaaykat yi daal. njiitu réew mi wax na ko secteur euh, maanaam entreprise yi dinañ leen jàppale. Est-ce que yéen vous êtes concerné euh, par cette euh, mesure bien sûr on est concerné ndaxte ndaxte dañoo bokk si entreprise bi nga xam ne des fois seen chiffre d'affaires du mat cent millions par année loolu boo si bokkee rek bokk nga donc loolu mën a touché touché na la ba pare bon ñun dañ de secteur bu fragile boo xam ne c'est un produit social donc mbir mi c'est c'est régulé donc moo tax on est de bokk si daal tey ji baguette bi yéen a ngi doon wax ne da ngeen di revoir lii di euh, donc kilogramme bi fan ngeen toll ci euh, waxtaan googu ak état. non fi mu toll jamono ji dafa toll foo xam ne mënuñu woon def ay revendication ak yooyu mais yaakaar naa ni lañ ko doon yitteel rek mooy lu ñu wax assainissement bi assainissement bi daal suñ ko toppee yaakaar naa ni ay coowati mburu moom gëma ñu dégg ko Sénégal la donc waaye am loolu neex nga jënd soo amee sa njëg daal nga jënd sa mburu li ko amee loolu daal loolu léegi daal. kon daal tey jàpp ngeen ne yeneen ponk yi am solo bu dee euh, ci kaw assainissement bi. Euh, réglé nañu mesure bi réglé nañu ko waaye yeneen ponk yi du mën a fay du yàq daal loolu mos am solo daal. ndax amu leen crainte bu pandémie bi jeexee ñu delluwaat ca lañ nekkoon delloowaat. mbubu am naa si crainte am naa si crainte bu safa saf léegi nag loolu ñu ngi xaar nag. yàlla mën na si jàppale daal. merci beaucoup Amadou Gaye président de la fédération des boulangers du Sénégal ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci c'est moi